alhamdulilahi waahidil ahad alfardi samad allazi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wala maa ngi nuyu kilifa yi ñu toogal fii ci jataay bi di jiital ci nuyo bi suma sëriñ sëriñ Moodu Asta Mbàkke ak sëriñ Saaliwu Mbàkke Balla Joor di ci teg sëñ Xaadim Mbàkke laay wax Balla Joor ak euh, sama sëriñ sëriñ Seex Ñas euh, di ko wax ñun ñëpp ñu ngi wàcc la trois incha allah siyaara lew na bi di ci teg suñu xarit imaam Dramé ak suñu mag suñu kilifa di Cheikh Tahiru Fall mi nga xam ne moom mooy suñu kilifa ci jataay bi di ñaanal bu baax euh, Omar Bamba Diop bi nga xam ne fii ma toog tey moo fu waroon a toog te yàlla def mu nekk ci ay loxo te dara yóbbu ko fu dul dañ koo tooñ di ñaan président Macky Sall mu bàyyi ko euh, balaa màggalub Daaru Muxti ndax moom maam Thierno Ibrahima Faty rek ku ko xam moom nga ko xamee moom la daan noyyee moom la bëggoon ndeem nag bisub maam Thierno baa ngi ñëw ñu ngi koy ñaanal ci barke maam Thierno yàlla génnee ko fa mu nekk di wax ñaari baat rek parce que daanaka bu ñu dégloo imaam Dramé déglu sëñ Cheikh ñas ak Oustaz Tahirou rek dañuy wax euh, daanaka mënoon nañu bañ a jël kàddu ndax liñ war a wax ak liñ bëgg a wax lépp wax na ko euh, li ci am solo rek mooy di soññ parti bi ñëpp ñu roy ci ñun waa Modap donte nag sax te telewut ne dañoo tëdd tëddi nelaw ñoom waaye dañoo toll foo xam ne euh, Sénégal moo moo soxla euh, peuple bi moo soxla kon kenn ku nekk euh, sa poos waru koo fekke sa temps itam waru koo fekke ndax dañoo nekk ci benn tournure boo xam ne ah liggéey dëgg moom lañuy laaj pour ñu mën a gañe élection yi premier tour waaye gañe ko ngañaay goo xam ne maanaam amut laam-laamee bu vingt jotee bu rajo yi waxee rek ñëpp danañ xam ne kii daaneel na kii mu jeex ndax ñiñ ko seqalkat dañoo nekk nit ñoo xam ne wër-wërloo ak tappale dañ koo mën kon waruñoo gañe sax cinquante cinq pour cent ki soixante pour cent soixante dix ba soixante quinze pour cent lañ soxla te loolu liggéeyee ko man beneen bi ci des mooy procès bi ñi ci ñi ci tëdd ñi ci ñàkk liggéey ak ñun ñii rek bundu xataal gii ñu ñuy bundu xataal ci Sénégal dafa metti bari ki démb damay wax téléphone ak kilifa euh, ma ne non bu ma taxawee ci ëtt bi mën naa am nit dégg ma xaaral ma dem ci buntu kër bi ma taxaw ci buntu kër bi di wax téléphone ba mu yàgg ma avancé ba ca bopp koñ ba noonu taxaw fa lu mat une heure de temps wax téléphone ba noppi di ñëw bi ma ñëwee dama fekk sama waa kër yépp ci buntu kër bi ñu taxaw tiit nañ pour ñoom jël nañ ma ba yóbbu ma bu yàgg réew moomu lañ yor mooy ku gisul sa mbokk sax yaakaar nga ne jël nañ ko ba ba tëj ko wala jël nañ ko ba rey ko kon sénégalais yi seen xel dalut loolu nag li ko fiy jëlee mooy élection yii di ñëw la 25 février mm-hmm. ñu taxaw jëlee fi jëli suñuy carte mm-hmm. avant tout parce que képp ku ne da ngay da ngaa bëgg a jàppale Ousmane ko li nga mën a jàppale la ca mooy wateel ko la nga ko mën a wateele nag mooy carte d'identité te carte d'identité yi ñi ngi fees dell ci préfecture yi mm-hmm. fees dell ci maire yi ba noppi ngeen yor nekk ci Facebook bi di coow loolu amul solo na kenn ku nekk dajale sa njaboot ku war a dem jëli kartam na ko dem jëli damay wax ne taxawaay bi ku bëgg a xam nu mu war a toll rek na nga gëmm nga xalaat Amadou Ba wala boog euh, euh, candidat continuté bi hmm. mu nekk ca pale ba def passation de service ba noppi fukki at yooyu coono bi nga nar a dund ci Sénégal boo ko xalaatee di nga jël coono boobu nga def ko ci 21 jours yii ñu war a campagne pour musiba moomu bañ a am ci Sénégal mukk sëñ Samba day wax ne ku dul xalaat guddi gu njëkk ci bàmmeel loola neex defal waaye damay damay wax ne ku dul xalaat continuité ci palais bi bu la neexee campagne bi euh, tëddal heure bu neex yeewul bu la neex waaye kuy xalaat daal continuité ci biir palais bii doo amati heure tëdd doo amati heure yeewu waaw ku dul xalaat guddi gu njëkk ci bàmmeel loola neex defal waaye ku dul xalaat continuité dugg na pale waaye waaye heure boo la neex yeewul boo amee sa xaalis téyel boo amee sa discours téyel waaye bu ngeen sàgganee ba continuité dugg ci palais bii danañ yokk torox gi giñ torox danañ yokk coono bi ñu sonn danañ yokk jaaxle giñ jaaxle loolu moom sénégalais yëpp laa koy wax bu kenn am heure bu kenn am heure tëdd kenn ku nekk dellul ci sa dëkku baay ak sa dëkku maam wala nga dem fa nga takke soxna baa nga dem ci say goro lépp pour rek bu élection yi jotee bu ñu mënee gañe quatre quatre-vingt pour cent sax ñu jël lu mu gën gaaw rek gën a leer rek moo ñu gënal ndax loolu mooy li war te nag Ousmane Sonko da koo liggéey parti Pastef liggéey ko ba mu des ñaar fukki fan su Sonko nekkoon ci biti bayreem ak mbooloom ak hayba mate na dem wër Sénégal def li muy def ñëw toog su boobaa ñun ñii ñëpp mën nañoo nekk ci suñuy kurus waaye nag bàjjo ba nag dafay nekkut dañ koo téye te téye gi nag liñ ci identifier bokkoon na ci dañ koo téyewul woon ca législatif ya mu dem campagne xaw leen a rey ñu ne kon buñ ko téyee bu campagne danañ am benn 10 pour cent boo xam ne bu Sonko campagne oon ñoom danañ wate bii pour cent boobu nag nañ génn campagne pour nangu ji ko ba nga xam ne Sonko campagne ak mu bañ a campagne ñoo yam wala sax ñu ne bu Sonko bu ñu yëgoon bàyyi Sonko mu camp mu campagne pour Cheikh Bara ak Cheikh Tahirou ñoom ñi bañ a génn ci terrain bi parce que jàpp naa ne ñun ñëpp buñ génnee kenn ku nekk def li nga war a def ci vingt vingt-deux jours yooyu moom mooy raw bu Ousmane sonk génnoon donc kon loolu nañ ko bàyyi xel deuxièmement bi may waxaat rek mooy Ousmane Sonko ci boppam euh, xam naa ne wax ji dana ci jot mooy kilifa diine yi dañ koo ñaanoon ca mois de mars ne ko bàyyil mu ne ku ngeen di ñaan nekku fi waaye ku ngeen di jox ndigal mu jëfe ko moo fi nekk ba loola amee sëriñ Muntaxa Mbàkke wax ko ne ko man de Ousmane ameel naa la bor te sëñ Muntaxa de mooy sëñ Tubaa comme ameel bor dana la fay ma toog di seetaan Ousmane ko bërki démb mu ne maa ngi ñaan sénégalais yi soit bii ma def muy Basiiru Jomaay Fay nañ ma ci fekk si dafa ñaan comme ni ko sëñ Muntaxaa ñaane woon waaye ma gis sénégalais yëpp di ko tontu rek te bàyyiwuñ xel liñ ko tontu ñun amuñu luñ lay may da ñuy digal rek koo joxoñ ñu dem fa muy baat ba mu tontu woon sëñ Muntaxaa sénégalais yi di ko ko tontu kon sëñ Muntaxaa fay na ko borom ndax su fekkente ne kilifa diine yi dafa jekku état bi moom kilifa diine ne ko ñaan naa la mu ne bul ma ñaan digal ma rek ma def moom bu toogee wax sénégalais yi ne leen ñaan naa leen ñu ngi koy wax Ousmane amoo fi koy ñaan koy digal mu def nga fi am te incha allahu sa ndigal loolu su reson Sénégal yëpp danañ ko jëfe mooy taxaw jël bulletin Bassirou Diomaye fay wote ko saa xalaat saa doute sans dara parce que xam nañ Diomaye nag Diomaye mooy Ousmane te Ousmane mooy Diomaye hmm. kon nag ñoom ñaar koo ci koo koo ci jël rek jël nga ka ca des te nag yonte yàlla Moussa ba muy wax yàlla ne ko defal ma sama rakk jii muy Haaruna euh, ab yonentu la ko yàlla waxoon rek la ñuy wax xat ootita suuf la ko yaa Moussa jeex na euh, jomaay moomu nag yàlla dafa dogal euh, Ousmane la ñuy wax zil nooréy nii borom ñaari leer yi hmm. moo ne mënoon nañ ko wax borom genn leer gi de waaye boroom ñaari leer lañu wax kon nag ñaari leer yi boo ci topp rek ci Ousmane lay delloo benn leer gi boo ko toppee mu yóbbu la ci Ousmane Sonko ganeen leer gi boo ko toppee mooy jomaay mu delloowaat la ci Ousmane Sonko ndax mooy borom ñaari leer yi us jomaay nag dafa am lu ci am loo xam ne euh, dama bëgg sénégalais yëpp bàyyiwaale ko xel ndax bulletin bi gis naa ne amul lenn luñ mën a tudd ne lii mooy bulletin jomaay fay moo nekk ca bulletin ba comme ni ñuy mën a waxee bopp fas wi nga xam ne dañ naan moytu leen bulletin bopp fas woowu baaxut amuñu ñun màndarga waaye dafa am màndarga moo xam ne moo doy mandarga mooy mbooleem candidat yëpp ñaar fukki candidat yëpp ka ca am sikkim ba rek sikkim bi rek mooy Diomaye kon maire yeeg paa yeeg ñiy doog a wateeg borom bët yu naqari yeeg ñëpp rek ab sikkim neex naa xam candidat yi ñaar fukk yëpp benn moom Pape Djibril laa ci gis moo yor as sikkim su tol nii te dinaa ko wër ba gis ko wat ko waaw campagne bi moom xam naa fu ñu daje maag Pape Djibril ñu bàyyee suñu sikkim moom sikkim moom ñoo ko moom waaw loolu na leer nañ waaw Pape Djibril jox naa la eh, ultimatum 24 heures sikkim bi na dañ waaw candidat yi ci des yëpp ñii la def nu rus mennum jamaay moo ci yor ay faas na ngeen ko xàmmee borom faas yu jekk yi rek kooku mooy Ousmane ko ko wateel wateel nga Ousmane Sonko te nag dafa am lu ci am lu baatine mooy turandoom mm. sëñ Basiiru mm. ay faas lañ ko doon xàmmee mm. boo déggee bu ñu la joxee junni nga ne ñu naan la jox ma bas ñu naan mooy junni sëñ Fallou moo daan tooñe sëñ Basiiru bas ndax dafa am ci kayitu téeméer wa jamonoy sëñ fàllu dafa am paa buñ ci defoon bu am ab sikkim sikkim bañ ci defoon nag sëñ Fallou xool ko di tooñ naan boroom sikkim bi sañ Basiiru la looloo tax mujj ñi naan junni wi ku ne koo ne bas rek ñi xam ne junni ngay wax kon turandooy jomaay fay ci boppam ab sikkim lañ ko daan xàmmikoo mooy sikkim bu jekk ba kon nag Bassirou Diomaye Faye bulletin sénégalais yëpp nañ ko xam ne kuy wate rek wateelal borom sikkim bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu